habillés hein, euh, aux couleurs euh, bleu blanc monsieur Seck waaw xanaa nga jox tuuti monsieur doyen bu doyen bu ci majoré yi kàddu ci wolof wax ci tuuti ci wolof ci majoré yi waaw ñi mooy xale yi nga xam ne ñoom la ñuy waxee majoré ndax bu feet amee dañ leen di woo ñu di jàngal seen suuf folklore bi nag lañ koy jël xam-xam yëpp seen fit yëpp defoon nañ ko ci réew mi ba jàmm am. waaw kay li ñuy waxee tout le temps rek. waaw xam nga dañuy bu lëkk lekkee alom na ko gërëmee cooy. gërëmee cooy. comme mooy li nga wax rek maam yee fi nekkoon. ñoo tax doom yi taxaw fi tey. ñu ngi nii bu lëkk lekkee alom daal na ko gërëmee cooy. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. arts euh, martiaux. Et cette fois-ci avec Michel Diassé. à une responsable dans un élan humanitaire, dans une société libre. Le mois Taï, le mois Saïd à l'origine de son mouvement, on nomme une bataille et une idée. L'homme, c'est jean la bataille était la guerre de ce pays-là au nord de l'Italie où les forces françaises en alliance avec les Italiens livraient une des plus atroces guerres aux Ces Cet affrontement violent laisse sur le terrain victim. They know Thank you.

Il est issu de la 23e promotion de l'École nationale des officiers d'active de Thiès qui commande actuellement la compagnie soutien de l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Cameroun par le lieutenant Honodou Bamba qui commande la deuxième compagnie de l'école des sous-officiers de la gendarmerie de Fatih. Le détachement qui suit, c'est le détachement de la compagnie soutien de l'école nationale des sous-officiers actifs c'est un ancien commando. Il a servi pendant longtemps au bataillon des commandos de Thiès. Le sous-lieutenant Boukarda commande la première section. L'adjudant Alassane Lhomme commande la deuxième section. c'est la troisième compagnie d'incendie et de secours. Ah, sous les ordres du serrant-chef Bilali Gallo. ñëpp ñi japp ci défilé bi nga xamanténé défilé bu rafet la ñu dund ko tay fi ci région Kaffrine ma ci comité régional bi mais je bobu ma sante le capitaine Thiam bi nga maintenu mon moo commandé troupes yi défiler défilé bi mën a remercier encore di féliciter le commandant Diagne bi commandant de la zone militaire de Kaolack féliciter aussi le capitaine Gay commandant de la compagnie de gendarmerie de Kaolak, bi comme légion di féliciter de remercier ñëpp ñi nga ne nañ ci de bi de bés bi mën Abdoulaye le maire de la commune de Kafrine, bi nga depuis ñu waaj bés bi moo ngi de di dugg di pour que

te ñu liggéey liggéey bu rafet ba bés bi mel ni mu mel nii di gërëm anciens combattants yi di gërëm élèves yi à travers les élèves maa ngi remercier l'inspecteur d'académie bi nga xamante ne aussi jàpp na ci bés bi ba bés bi mën a mel ni mu mel maa ngi gërëm ñëpp bu ma ci thème bi nga xamante ne moom la ñu bi 4 avril ren bi mooy force de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires loolu defay wone rek euh, intérêt bi nga xamante ak solo bi nga ne mom le président de la république jox c'est walu sécurité rawatina nak li jëm ci ar nit ñi ak seeni momel. lolu nak damay profité rek ci bi pour wo population kafrine wo askan bi yépp ne leen dañoo war a joxante loxo ak force de sécurité et de défense yi muy gendarmerie muy police muy armée muy sapeur pompier muy ñeneen ak autorité administrative yi fi nekk pour que ñu mën a jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne mën nañu jéem a indi ñaawteef ci dëkk bi loolu nag tax na ñu woo askan bi bu ñu gisee ka nga xamante ne daawuñ ko gis ci seen quartier wala ci seen village wala ci seen dëkk ñu mën koo signaler ko euh, police gendarmerie wala armée wala autorité bi nga xamante ne moo leen gën a jege muy sous préfet préfet wala gouverneur bu ñu gisee itam nit nga xamante ne commencé na def la nga xamante ne ah daawloon am habitude di ko gis mu koy def wala mu mel na nga xamante ne daawloon am habitude mu mel noonu wala mu am ay xalaat ya nga xamante ne amuloon habitude am xalaat yooyu nañ ko gaaw signaler ñi nga xamante ne ñoo yore sécurité bi loolu daal laa bëggoon na woo askan bi ñun ñëpp ñu jàpp ci parce que sécurité moom mbiru euh, ñëpp la ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp. dimbalé force de défense et euh, de sécurité yi pour que ñun ñu mëna ar euh réew mi ndax euh, développement mënuñ ko def té sécurité amul en tout cas ma ngi gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp di sant ñëpp ci bës bi bës bi rafetna may wax euh, wa population kafrine rek déwénati be dewen ci jàmm.